mais Bougane. c'est un langage violent maa ngi la naan. mais mais mais c'était mon devoir quand même ma ma ma ma jox la sa version des faits. c'est ça xam la naan man parfois du la comprendre. dañ la déjà ba ñuy def seen yeewi euh, dañoo ñëw def seeni couleur ñu wax ñu ne les partis euh, leaders c'est euh, PDS euh, PASTEF Taxawu Dakar sëñ Mansour si Euh, pur ñu yow nga génn parce que jàpp nga ne mbir moomu jaarul woon yoon plus tard sax euh, tu diras que Khalifa Sall s'est arrangé pour tex pour te pour te pousser ak quitter li nga xam ne moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy Yewwi Askan Wi ñoom yow ñu dem élection ñu valider seen liste Dakar valider seen liste kii nu mu tudd Euh, suppléant éliminer seen liste titulaire yi ñuy battre campagne yow ngay battre campagne waa Pastef jàppale yow daal yow yaay seen punching bol favori mais Bougane communication boo jóg ñu dal sa kaw jàpp la jàpp la man gëmoon naa ne am na moment boo xam ne yow ak Ousmane Sonko fini mais ñu gis la fan yi nga mel ni ku lëkkaloowaat ak Ousmane Sonko moom sax dans une déclaration ndeysaan mu ne euh, président Bougane Gueye Dany keroog dafa dem kafrin euh, ñu meeru Kaffrine ba attaqué ko fa d'ailleurs lool dinañ ci dinañ ci dinañ ci ñëw. mu mel ni fan yi nag euh, voilà dafa am laamisoo yow nee nga da ngay defaan Ousmane Sonko da nga bëgg mu nekk candidat Bougane ñun xam nañ politique de. d'ailleurs d'abord ce ne sont pas des enfants de kër qui font la politique gis nañ tey ñu bari tey ñu ngi défendre Ousmane Sonko ñoom seen bopp la ñuy défendre la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy liggéeyal tey ji tey ni ma la gis ngay def nii du ma bett ëllëg Ousmane Sonko bañ a dem mais mu joxe ndigal ci ñu jàppale la parce que vous êtes de la même génération da ngay nax Ousmane Sonko walla li ngay def nii conviction la Tu as une question Ouais. bu dawal yàggee gawar feeñ bu dawal yàggee. mooy bu dawal yàggee gawar feeñ bu dawal yàggee gawar feeñ. mooy lan. Bougane ak loo ko mën a waxal nangul ne nit la koo xam ne lu mu gëmul. du ci dugg Bougane ak lu ko nit mun a waxal nit la koo xam ne nitu conviction la Bougane ak lu ko nit mun a waxal mooy lu mu gëmul kenn mënta fexe ba mu défendre ko Yewwi Askan Wi la ma ca gisoon wax naa ko à l'époque les faits vous ont raison waaw moo tax ma ne la bu dawal yàggee gawar feeñ la ñi ñiy wax ku nekk la nga wax yow la engagé mais man li nekk ci suma kanam non non wàccu ma ci de maa ngi ci loolu ba léegi. jàpp nga ba tey yaa ngi jàpp ne. élection yi dañu rejeter sa liste mais da nga battre campagne dama battre campagne soutenir Yewwi parce que loolu laa gëm dama gëm ne Macky Sall boo ma ko tegalee tegal ma bëy bu ñu musóor ma taamu bëy bi aw ma problème ak Macky Sall jikko yi mu yàq ci réew mi laa am ak moom problème dama jàpp ne garabu njuuj njaaj gi Macky Sall jëmbat ci senegal xob yi doon wor xob yi doon wax mu teggiku xob yi doon muucu alalu réew mi xob yi doon fexe ba ñi nekkoon di faj soxla démb tey ñu nekk ñi nga xam ne dañuy tàllal loxo ma jàpp ne loolu Macky Sall moo ko indi ci réew mi Macky Sall moo yàq jikko yi ci réew mi ma jàpp ne loolu dama ko war a xeex moo tax ma bokk ci ñi nga xam ne dañu doon campagne pour que benn Bokk Yaakaar bañ a am majorité à l'Assemblée nationale ma campagne comme su ma nekkoon ci jamonoy campagne li ma ci mën yëpp ma def ko ci parce que loolu laa gëp may mun a man nanguwuma ñuy néewal doole doomu aadama ak lu nit mun a wax ci man dangay wax rek mu wadd romb parce que xam nga lu tax su ma bëgg Sénégal su ma passion ci réew mi ah loolu jaral na ma man lu ñu wax ci man ma ma ma encaissé ko jaral na ma ku ma tooñ ma baal la parce que jàpp naa ni dama bëgg réew mi yor ko ci sago. mais ci point boobu. jàpp nga ne dama bëgg jël askan bi Khalifa Sall moo la poussé vers la sortie jël réew mi ci sago. dama bëgg jël réew mi ci sago defar réew mi ci sago nit ñi tekki ci sago ma pare ci sago. delloo ko nit ñi ci sago kon mënuma nekk nit kuy jàpp mer wala di fayantu déedéet. donc meretuloo Khalifa Sall man musuma mere kenn. jàppoo ne moom moo la génnee moom moo la précipité. vers la sortie mais xam nga loolu wax naa ci parce que tout simplement jàpp naa ne xëy na moment booba ñoom bëgguñu woon ma nekk ci biir Yewwi aussi simple. buñ la woowee di nga dem foofu. du question woo parce que nee naa la man xeexuma Macky Sall. jëmm ji doxalin bi laay xeex donc su ma gisee ñuy def même doxalin bi que Macky Sall ñàkk nawloo nit ñi nga àndal mais bu boobaa ma xeex ko et c'est ce que j'ai fait. teewul tey mën nga duggaat yeewi tey ñu di retrouver wu ci biir F24. mais est-ce que mën nga duggaat yeewi tey ñu ngi ci biir f fi mu toll nii dañu jëm élection présidentielle. ku nekk da nga war a samp sa ndënd boo jàppee ne yow war nga yore réew mi te man jàpp naa ne ñi taxaw tey pour jë jublu ci Sénégal pour defar senegal kenn ëppuma ci yéene ci réew mi kenn gënuma ci maîtriser Sénégal kenn ci ñoom ñi nga xam ne bëgg na Sénégal wala bëgg nañu jiite Sénégal li ma biir mooy li ma xam ci réew mi gëw ma ne ci ñoom am na ku ko xam ci réew mais Bougane objectif da am politique dafa am objectif. mais objectif bi ma la wax mooy jël réew mi ci sago jiite ko ci sago fexe nit ñi tekk ci sago ma fexe ba nit ñi am teraanga ci sago ma pare ci sago joxe réew mi ci sago.